parce que lieu de fréquentation yi dafa bëri dafa bëri yëpp kenn mënu ko tëj te gis nga yeneen réew tudd nga ay réew yu bëri doole yu yàlla jox doole mais ki la doole boo ko toppandoo doo dem am na loo xam ne bu ko Sénégal yi jëfandikoo bu feebar bi weesee rek ñu am pertement bu bëri parce que suñu kàttan àtt na ko yow bu ñu àndee maas en tant que adjoint maire en tant man ak yow ak Pape Tall yii kii di salarié man may jaay radi ñu dem restaurant ngeen jël euh, ku ne la ngay lekk ëpp na trente mille te man dix mille laa yor ma laaj palaat trente mille buñ paree da ngeen génn may du ma génn dañ may téye xam nga lu ma war a laaj ndax am ngeen fi ndambe wala ceebu géej ma jënd la ma tollool ñu lekk génn su ngeen géexee ma géex géexu ganaar amul géexu yàpp amul géexu ndambe amul géex géex rek la te li nit mën a mën a fen biir du fen donc nit day def la mu tolloon sunu moytuwoo rek lii bu jàllee mën nañu indil faiblesse bu bari ci sunu wàllu koom-koom ci sunu wàllu liggéey ci sunu tax wax taxawaay moo tax maa ngi koy ñaanaat buñ ko defee baax na buñ ko deful ñoo xam te léeg-léeg ma dégg am ku ne feebar bi de amul ci réew mi ñu ne ko kaay. nañ wax amiin nañ wax amiin rek te xam ne daa xamul li xew parce que sa kër maas ma xëy ne fii choléra ngi fi da nga ma yóbbu police lu tax ngay wax sama kër daam am choléra te day wàlle wala daa am euh, corona wala daa am Ebola lu tax nga ko fii tudd nañuy wax amiin rek ku ne amul ñu ne amiin parce que xamul xamul bu ñu ñaan yàlla mukk moo am fi lore bu ñu ñaan yàlla it mu am mu mu mu am fi rëy parce que koo xam ne yow jonjoo ak mbir yi mënoo ci xam dara wax dëgg yàlla mais ne nañ xam ne Sénégal tëddee noon su wax jotee ñëppay jog wax waaw Iran mi xam lu xew ak Iran mi xamul lu xew ak ñëppay rëtëtëti jarul sonn nañu jiital xel yi jiital sago jiital dal jiital tey corona moo si biru mii ñoo ak tànk buy metti ak wànnent ñoom ñëpp feebar la ñu tudd kenn ku ne dangar jëcce yow yàllaa ko ci def périmé amul lu périmé am na wala amul périmé amul lii mënul périmé am day dem ba faw ah mais day périmé feebar day périmé ti nu mu gën a avancé di gën a néew doole Maodo ne ida mastadda usrun fa yusrulaay fil amami mbir moo gis muy tar di gën a garaaw di gën a garaaw si daaj maa nee ca jeex la jëm Chine ngam doon nekk yokkooti na fa du dellu gën dellu na gannaaw jeex na fii dara nañ gëm yàlla óolu ko te bañ koo boole ci sunu programme interdiction bi niñ ci génne sunu borom seet ñun yi ñu moom ñu interdire foofu bàyyi xel sunu borom ti nag ñu defaraat jikko yi nag dellu ci yàlla tuub parce que tuub it baax na si nga maam Abdoul Aziz danaan def bu réew mi amee problème ñu ne nawet dañuy ñaan ndox lum mu daan wax nañ tëj baari yi ko wax waxu maa ñu dof de maa yéen a bokk ci waawoon nañ tëj baar yi arrêté lan sabar yi ñu tëj lépp ca ñamu tombeeloon ñu ñu nangul ko ko parce que yàlla mayoon na ko nag lu mu ñaan waa réew mi ñu may ko ko élèves yi bu ñu grévé bu leen ñaanee ñu may ko parce que jikkoom la nit ku ne ni nga mel la la nit ñiy téye mais bu ko defaan ba ñu tëj lu muy wax wàcce kaamil loolu la daan wax nañu def ay kaamil ñëpp wàcce kaamil génn sarax yàlla taw ba ñu naan kër yaa ngi indonde lu mel nii bu ñëwee nañ dellu ca loola ci dem liggéey yi sinon ku fi wëlbati ko sa tool dana boy dangay ngay ne ci coow li coow li coow li ba coow li jeex nga ne maa ngi xëy liggéey dem fekk sa tool booy ñax ma doo ko mën a bay na ñu teg coow li ci suuf bañ koo sénégaleel te xam ne lii dogalu sunu borom la coobareem la te fekk na fi feebar te feebar boobu reegul kenn gis nga dangay dem ci famille Pape ni kii moor la tudd dafa yor sida wala dafa yor cancer ji nga moor moomu moor moomu toog na fi dix ans yoo xam ne dix mille personnes dee nañ ci kanamam te feebar bi ko dal dalul ñi feebar lu rey feebar bu doon rey ñi ci hôpital yi dee ba pare ñun ñu feebaru ñu doog a dee mais yow dégg nga ba taay ku toog ci néegam dee fa dégg nga ba taay ku tëdd yeewul jigéen ëmb na ànd doom ja dem nit doon na tukki yam ci yoon wi lii rey du corona yàlla mooy rey nguur sii baleen ko fii gars yi buñ ko mbambee ba ba ko léegi dégg na yooru la sénégalais ak seen wax ku ñu tiye ba bala corona defe na saagam moom danaan fii duma fene parce que dañoo bëri wax sénégalais ku ñu mbàmb moo tax yërëm naa ku leen jiite ku leen jiite ti miinoo yi nga fii bu fi am malien ñëwoon wala Guinée wala beneen réew di dem élection ba gañe réew mi du fi toog semaine su ko gaa yi yuuxoo ba ba ko day xëy ñu ne dem na Guinée fii ku leen miin doom nga leen mën a jiite wax ji bëri na jëf ji néew na wax ji bëri na jëf ji néew na wax ji bëri na jëf ji néew na nañu wàññi coow li te ñu ànd ak yàlla mi wàcc lii waaye waaye yéen ñii toog ak man a keneen ak keneen am nañu boo doon tëdd ci mbedd mi sax te war laa dal du la dal wiqaayatullaahi ëxnat an mudaafatin min a duruuci wa ana ali min al utumi bu sayree ko wax nee na boo tëddoon ca ba te waroo dee bu la train bi jubee du tàkk day fay fii daara sëñ Mansour bii benn xale boo xam ne dafa dawoon ñuy koy wër gisuñu ko benn jour train bi di jëm ñëw ba tollook kër Pape Alaaji Aline Mbaye Paala mu fay kamaj booba ñun ñu ngi yelwaan gars yi seet lan la dugg fii génn benn paa moo yor torsam rek def nii di nit di xool ba ne waaw est-ce que du lii am na xale bu tëdd nii de ñu yëkkati ko génne ko taal mu tàkk soo répond train bi du fay paan am bañ ko yëkkatee lañ jàppaat dem seen yoon yàlla bu la nëmmee aar kenn mënu ci dara. ci des nag mooy li ñu ne ku ne na ci jàpp ñu mën a gën a mën a uut gën a mu na wut ay matuwaay ku na ci def la mu am parce que farata nag parce que newuñu ne ñu jàppale Macky mu dem élection mu am lu mu campagne yi déedéet bu doon loolu dañ ko naan yow mi jëm campagne yi ti loo demee ah ñu ne beneen leader mu Moustapha uutal loo demee ne Idrissa uutal loo demee waaye lii élection wu réew mi la ñu am benn leader buñ bëgg gañe muy ku ñoo nguur suñoo corona kon il faut ñun ñëpp ñu àndandoo jàppale suñu leader bi ñuy tuddee jàmm ak wér bañu ñu bañ a yegg ci kawam ñu ne ku ne loo am làmb ko lu mu lay wàññi daf lay dimbali yow ja yow maas boo feebarul Pape Talla feebarul xaasum feebarul kenn ku nekk ci yéen kenn dara dalu la mais sa dërëm ba nga ci dugal ni wéree ci am nga ci yiwu ku dundal ko dundal nit moom may deret ñoo yem bu ngeen ko politiser àdduna tukki diw neexuma duma def man Macky du sama président duma def yooyu du wax danga koy teg da ngay teg ma ki fële seet li xew nga dugal ca la nga am ñu bokkandoo xeex sunu paree ku ne dellu ca la nga nekkoon loolu mooy farat kon lu waay mën waaye am ko di sa xol attan ko parce que nag nit ñi il faut nga balee nag seen bopp waaye ko sa xol attan nga du question jullit nag déedéet du affaire musulman du affaire katolik du affaire juif du affaire yu woon nag mu mel ni Iran déedéet affaire sénégalais yi la ñu am ku ñuy attaqué ñu di ko attaqué pour defanteeg moom ba def ko li ñu bëgg mu dem yoonam muy korona xale boobu daal moo tax mag ñi jóg booy la nag amul doole goos bu garaaw la mais mag ñee ko gën a garaaw donc du lu garaaw na nit ñi daal seen xel maas dara jàmm rek kay te parce que moom lañ koy ñaan lii ngeen romb muy riir mais yàlla mënu koo gis yu itam nag di xool wuy yu ca mbedd ma yow tuusu sa xale bi la nangul ñett ñi la bañal du tax nga ne taal leen kër ñu reyaale ki nangu non non naan bu duloon diw gaa yi ñoo dajaloo su naa li si ñëw di la ñaan dara fekk ma nañ la saaga ci internet bi nga ne leen bu loon Pape Talla mii toog li ngeen fi duma ko def